yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf fii la fuuta féete futu tuñ Macky mi ñuy njoxtal ak romandaatal ne troisième mandat dafa nekk ci xel mi suur suwaa ne nañu yokk na ci xarmi karaw yëral xët mu njëkko yéenekaay bi keroog samedi bi waa APR doon def seen lancement wante de carte journal bi ne nañu fa la président Macky Sall waxee ak les waxul dane gaayam yi tey jii dafay bés bu spécial ci ñun bésub saafonte ci diggante militants li ma bëgg mooy ngeen gën a soobu ci bi occupé leen terrain ngi seere ngeen taxawal ab bloc bu dëgër këcc vox populi ak journalisé ko xëy ñu xamal seen xët yu njëkk li président Macky Sall xamal ay militangam keroog ca ndajama mu di l'heure est au combat lu waay jàppoon na ko bàyyi te xam ne waxtu xeex waxtu wàcc ci terrain bi waxtu defante jot na lise ko nañu dem na ca ba di leen wax ne parti politique bi teg tànk fii ci réew mi parti politique bi gën a mag ci réew mi ñun waa APR la anki dina kay nañu li mu bëgg mu carte yi jàmbaarlem gi ñuy jàbbaajo ngi ci réew mi toll na ni ne keroog samedi ca ndajama jël na kàddu gi wax ba sottal tuddul fenn waxi troisième ki tudd waxi troisième mandat source mi ngi ñuy xamal ne moo di ministre communication maître Moussa Bokar Thiam démb ci RFM ci émission Grand Jury fa la waxee moom maître Moussa Bokar Thiam ne Macky Sall mooy candidat Benno Bokk Yaakaar ci élection présidentielle yu 2024 yi directrice de l'alphabétisation di Ndeye Nam Diouf mel ne ku ñu ci xët mu njëkk source soit bu ñu ruube wax ji ko wax moo di ñaareelu quinquennat ngir Macky tribune nañu ak lu ci mën di doon ak lu mën di xew na nit ñi xam ne Macky Sall tàmbali na campagne am ngir am troisième mandat ndajeem lancement wante carte yi woon keroog ak li fa jib nay kàddu journal tribune nee nañu doy na ci sëkk firnde ay xeltukat ak i gëstukat ci wàllu politique di analyse politique ku ci mel ni professeur Moussa Diaw moom li mu jàpp boo ko ci l'observateur moo di Macky Sall ak ni mu doxalee keroog ak li mu wax jéego beneen la bu mu tekk jëm ci wuti troisième mandat l'observateur teg ci waxaa ñu it liñ jiital APR gi wax waa këram yi li mu ne leen bu leen bàyyi yëfeek opposition bi mobilisé wu leen wane leen seen doole wan leen gaañu ne feneen la ñu jëm ñun fa ñuy xool du fii fépp feneen di ci journal l'info ñu fekki fa keneen kuy wax ci leneen ubbil yéenekaay bi Pape Modou Fall xëy dalal ci xëtam mu njëkk di waxtaan ak moom ci lëgu Benno Bokk Yaakaar moom directeur de l'emploi président bu parti bii di RV dëgg moo wóor doo nit coordonnateur bu coalition républicaine sàmm suñu réew nee na dañoo war a tas Benno Bokk Yaakaar ndax atteindre na ay limitam bu doon watala ñu ne yegg na gaaraas bu ko defee ñu taxawal geneen kuréelu politique maanaam beneen boo xam ne ña cay nekk ay nit yi valeur yu xereñ am xam-xam kàttan ak mën-mën mën a jàppale président Macky Sall ba mu amaat ñaareelu mandat bu juróomi at ndax lu jaadu la folli Macky Sall fal Alaaji Mali Gakou journal L'Info nee nañu ci fii la waa grand bi mi ngi ñuy xamal ne keroog def nañu seen ndajem investiture ba tànn kii di Alaaji Mali Gakou def ko seen candidat ngir mu doon cinquième président de la République bu Sénégal si du côté nañu lu jëm ci candidature opposition bi ci élection présidentielle yu 2024 yi Alaaji Mali Gakou bàyyeewul yëf yeeg Ousmane Sonko ne fa Sonko teggee tànkam Gakou teg na fa bosam ki teg toog Sonko mooy Souleymane Ndiaye njiital ko ca rajo Sud FM ci émission jano bi moom secrétaire général bu parti SDD ñi na fa strategi di doxalinu Ousmane sunk ci mbirum Sweet Beauté bi nee na coow lu bari rek manipulation yu rëy yi jaru ko fi bu wóoloo boppam Ousmane Sonko na dem ca kanamu yoon di justice ragge ji faab daram moo gën di bëgg a gëm loo nit ñi lu amul li am ci dogal bi nguur gi jël ngir wàññi njëgu dund gi soleil national nee nañu doxul journal bi sukkandiku ci reportage bu mu def ca marché bu Castor mu gis moo di yi dañoo mel na ñu déggul dogalum nguur gi njëg yi wàññiwuñu ci dara amul benn changement bu ci am Walf Quotidien di ko dëggal ba di ñu wax ne bu nguur gi wàññee njëg it commerçant yi ñoom wàññiwuñ ni quartier yu ci mel ne Grand Yoff Wakam ñaari daan jaayee la ñuy jaayee ba léegi nee nañu bala ñu leen di wàññiloo nañu wàññiloo grossiste leen di ravitailler ba pare amit yeneen i yooyu yéenekaay bi nee nañu li ñu bëgg ba di ko sàkku ci nguur gi moo di dérogation ñu may leen ba li ñu yore ci ay stock ñi jeexal ko soog di mën wàññi njëg yi journal Tribune nañu am na ay jaaykat yu boole ak ñaw ak muus ci mbir yi ndax njëg yi leen nguur gi wàññiloo wàññi nañu ko waaye dañoo yokk yeneen njëg yi en